son excellence Francesco Paolo Venier di ambassadeur bi nga xam ne moo teewal réewum Italie fii ci senegal ànd naag délégation ñu ñëwoon ci bërëbu sell bii di Touba ngir saytul liggéey bu am solo bi nga xam ne Touba ca kanam Nour Daare ni ñu ko fi amal. bi ñu agsee ci résidence Khadim Rasoul lañ leen dalal kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba ca kanam ñoo leen dalal ci bërëb bi saafonte ak ñoom rafetlu ñëw gi nga xam ne ñëw nañ ko ci bërëbu sell bi di Touba. bokk na ci kilifa yooyu nga xam ne ñoo dalal son excellence fii ci résidence Khadim Rasoul Serigne bu Mbacke moom Cheikh Amadou Fadel mi nga xam ne mooy jëwrinu daayira Nour Daarayni Touba ca kanam mu waxtaan ak ambassadeur bi rafetlu tànk yi nga xam ne yëkkati na ko ñëw ba ci bërëb bu sell bii di Touba ak taxawaayub seenub gouvernement jëme ci liggéey bu am solo bi nga xam ne Touba ca kanam ñu ngi koy liggéey biñ bàyyi ko résidence Khadim Rasoul ci lañ dem ci daarul Minnan ngir ziyaare ji xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir bi ñu agsee ci bërëb bi ñu dalal leen ci saal bi ñu xaar sëriñ bi bi mu agsee ginnaaw ziyaara ak nuyoo ak saafuwante am na kàddu yu am solo yoo xamante ni sëriñ bi yëkkati na ko fa. sunu Senegal Italie menn réew la Italia è un paese tra l'Unione Europea eh, fa parte dell'Unione Europea dice che potessimo ñaare può dire tanti senegalesi che sono qui eh, vengono dall'Italia cioè Dice perché l'Italia è l'ha permesso la colta di essere lì, di immigrare lì. Per questo Senegal deve ringraziare moltissimo, tantissimo il paese d'Italia. grazie mille l'Italia. Ora Honorable Calife Général, merci merci beaucoup pour vos mots. et merci beaucoup pour euh, cette euh, réception. Euh, nous, cette petite délégation, moi-même, mon, euh, mon, adjointe et aussi M. Saho, qui est un Sénégalais qui nous aide dans, dans toutes les journées qu'on passe ensemble. Je, on vous remercie beaucoup pour cet accueil et pour la spiritualité qu'on a trouvée ici à Touba. Moi, j'ai cherché une occasion pour venir à Touba et je l'ai finalement trouvé pour venir euh, vous euh, offrir nos respects et on l'a trouvé grâce à cette occasion qui nous a offert, a été offerte par euh, Mohamed Ali qui est un bénévole, qui est un ambassadeur, qui est un Italien, qui est un Sénégalais, qui fait du bien et qui a voulu faire du bien à Touba à travers ses connexions en Italie, dans une région qui est très noble, qui est la Toscane. Donc euh, vraiment, aujourd'hui, je ne pourrais pas être plus heureux de cette occasion-là de voir, euh, de voir un concitoyen parmi ses concitoyens, parmi ses frères, parmi ces Sénégalais qui ont au cœur le destin du Sénégal auquel euh, l'Italie se sent fortement, fortement Je vous remercie encore une fois pour euh, cet accueil et je vous remercie aussi pour euh, cette occasion que vous, vous avez donnée à nous trois de passer un après-midi avec euh, la spiritualité mouride. Ça nous a enrichi beaucoup et on retourne à Dakar euh, plus heureux grâce à vous et à votre hospitalité merci encore fois jërëjëf ah sëriñ bi euh, ambassadeur bi di Paolo Vergini mu ne euh, kontaan na lool yàgg na doon jéem a wut yoon ngir ñëw Touba waaye lim doon wut am na ko tey mooy ñëw na Touba sabab bi ci kan la jaar kenn ci sa njaboot muy Mohamed Ali Ndiaye nee na am na mbegte lool ci ñëw fii di Touba di xolu euh, ngëm-ngëmu yoonu murit tey muy jataay bii mu toog ak yow mii kilifa ak yoon wi nee na mënta am mbegte mu ëpp mii munta am kontante bu ëpp bi mu am ci barab bi mu ñëw fekk fi kilifa gi muy yow waaye fekk fi sa njaboot mu ne moomet alinjaay Ndiaye kilifa la ca ñoom Ah, maanaam ambassadeur la ci ñoom italien la sénégalais la waaye ku leen indil ndam yu bari la mu ne waaye ku bëgg Touba la ku bëgg waa Touba la ku am yéen nañu jàppale leen la ba moo tax jokkaloo bi mu am ak waa itali yor fa nationalité bokk ca ñoom mu xëcc leen fexe ba lañu ñu am te mën koo dimbalee njaboot gi nekk dëkk bi ngir jàppale la ko loole mi ngi koy def kon mi ngi lay seedal ne ku bëgg dëkk bi la ku la bëgg la ku bëgg njaboot gi la waaye ku bëgg a dimbali waa dëkk bi la mu wax na it e, ñëw gi mu ñëw fii tey am na ci mbégte te nee na jàpp na ne bu delloo ndakaaru mënta am mbégte mu gën a tëree mbégte mii mu am tey kon nee na mi ngi sant bu baax e, Mohamed Ali Ndiaye waaye sant njaboot gi yëpp waaye sant la yow mii nga xam ne yaa ko may tey sa bopp mu fekkee jataay bi waaye Serigne Moudou abi mi nga xam ne liggéey bi yëpp ci moom la te sànq mi ngi koy wax ne ko liggéey bi lu mu rëy rëy su ne waaw ñu def su ne bàyyi lan ñu bàyyi kon cantam googu nag day duggaale ci biir moom mi jiita liggéey bi ba lii mën a amee ni nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm di wax ne sant mënut a sant waaye xolom sedd na wasalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bu leen sëriñ bi ñaanalee rafetlu bu baax liggéey bi nga xam ne Touba ca kanam ñu ngi koy amal ak ñëwug son excellence Francesco Paolo Venier ambassadeur bu réew Italie fii ci Sénégal délégation bi dem na ngir nemmeeku liggéey bu am solo bi nga xam ne Touba ca kanam ñu ngi koy liggéey fii ci Touba Mbacké bokk na ci jumtukaay yi nga xam ne réew Italie ñoo ko baaxee Touba ca kanam ci jàppandalul Mohamed Ali Ndiaye ak ñeneen ñu mel ni ñoom ñoo xamante ni dañuy jàpp ci liggéey bi ci noonee lañ ñëw fii ci post de santé bi nga xam ne Touba ca kanam moo ko liggéey te financé ko ci lu toll ci 147 millions de francs CFA bi ñu agsee ci poste de santé bi infirmier chef de poste bi moo leen dalal ginaaw bi ñu ànd ak kilifay Touba ca kanam yi ak délégation ambassadeur bi ñu visiter poste de santé bi ci noonee ci lañ saytuwaale ambulance bi nga xamante ni réewum Italie ñoo ko baaxee woon Touba ca kanam te mu indi ko ci poste de santé bi. ambassadeur bi rafetlu ni nga xam ne noonu la Touba ca kanam doxalee ci wàllu wi waaye yemu ca ne mboolem jumtukaay yi nga xam ne ñoo nekk ci poste de santé bi. ambassadeur bi visité na ko ànd kook mbooleem kilifa yi ak infirmier chef de post bi ak ni nga xam ne noonu lañuy ñuy liggéeyee ba ci mboolem médicament yi nga xamante ni ñoo nekk ci poste de santé bi. loolee lépp leeral nañ ko ambassadeur bi ak yi nga xam ne moo jiite daayira Nuuru Daarayni Touba ca kanam di sëriñ bu Mbàkke bokk na ci it ñu leeral leen mboolem tëralin ak ni nga xam ne noonu la poste de santé bi di doxee ginnaaw bërëb boobu. délégation bi dem nañ ci camp sapeur pompier bi nga xam ne moo nekk ci Touba. ñoom ñi it Touba ca kanam jébbaloon leen ab ambulance ak benn camion boo xam ne day fay lakk loolee lépp capitaine Lo mi nga xam ne moo jiitee bërëb bi bi ñu agsee ni nga xam ne noonu la Touba ca kanam taxawee ba jébbal leen jumtukaay yooyu loole lépp leer nañ ko son excellence Francesco Paolo Venier ñu àndandoo visiter camp bi waaye rafetlu bu baax a baax taxaw gi nga xamante nii Touba ca kanam taxaw na leen ko ci jumtukaay yi nga xam ne dañ ko yitte woon ngir taxaw bërëb bu sell bii di Touba ci seeni soxla jëmee ci waa sapeur pompier. ginnaaw biñ jugee ci camp bi ci lañ ñëw fii ci résidence Khadim Rasoul bi nekkee ci Daarul ma naan ci bërëb bi ñu nemmeeku ñetti ambulance yu yees yi nga xam ne day door a ñëw rek te réewum Italie baaxewaat ko Touba ca kanam loole di ak mbégte goo xam ne ñoom am nañ ko ci Touba ca kanam ci ni nga xam ne noonu lay doxalee te lépp loo xam ne jaar na ci loxoom mu dugal ko fi nga xam ne fa la ko war a dugal waaye di taxaw saa su ne ci bëgg-bëgg askanu Touba ngir seenu nekkin gën a mën a ñoŋ. fii ci résidence Xaadimu Rasuul bi nekkee ci Daarul Manaan fii leen Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadir daal di dalale moom it mu nuyoog ambassadeur bi ak mboolem délégation bi rafetlu seenu ñëw ci bërëbu sell bii di Touba. ginnaaw bi na waxtaanu yaatu woo xam ne. amal nañ ko ci résidence Xaadimu rasol bi ñu ànd teelu ko. mbokk yi ñu fii ci Touba Info ñu leen di ziara di leen nuyoo fii ci Touba résidence Xaadimu Rasuul ci Daarul naan ngir lan benn visite boo xam ne ambassade bu Italie di Paolo Vergini moom moo ko doon def si fii ànd ak secrétaire am di Sivia waaye àndoon ak euh, Mohamed Ali Ndiaye di doomu sénégalais waaye tey mu nekk italien nekk ci réewum Italie dafa def liggéey bu am solo. am nag ay don yoo xam ne jaaroon na ci moom ñëwoon ci waa Touba ca kanam ñoom ñu ñëwoon di seet si lu mel noonu waaye di visité waale li nga xam ne moom mooy xalif euh, général de Mouride di Serigne Mountakha Mbacké waaye fekk fi nag administration wu Touba ca kanam ku mel ni président bi Serigne Abdou Fatah Guèye secrétaire permanent bi Serigne Mourtala Seck administratif bi di Serigne Khadim Diouf waaye président commission communication Serigne Mamadou Fallou Ndiaye massification Serigne Bara Mbacké ñu ànd nag ak waa relation extérieure ci teewaayu Serigne Khadim Thian mu wutu fii ki nga xam ne moom moo di Serigne Abo Bousso te jiite li nga xam ne moom mooy sous commission bu Afrique ñu toll nag ci war a tëj visite bi àndoon ko ak Serigne Abibou Mbacké moom Serigne fàllu Serigne Abdou Lat moom Serigne Abibou ak mboolem waa Touba ca kanam nooru dara mi Serigne Abdou Fatah Guèye ngir tënk kàddu yooyu euh, tey bi ñu amee gan gi bu bàyyi ko itali nga xam ne 14 machines dialyse ak euh, juróomi ambulance ñaari auto sapeur pompier bàyyi ko na diwaanu Italie ñëw. ci teewaayu ambassadeur mu ñëw visiter hôpital bi visiter sëriñ bi gis camion yi euh, sëñ Abdou Fatah lan ngay wax ci visite bi ak yeneen bokku taalibe yi nga xam ne ñu ci yeneen réew yi te am ay relation yu am solo ak état yi ñu nekk lan la ñuy xaar ñoom seen diggante liggéeyu sëriñ Touba bi. sëriñ Mbaye ñoo ngi lay fay nuyoo di la jaajëfal bu baax di nuyu euh, sëriñ Mohamed Ali Ndiaye ak euh, waajuram yi nga xam ne ànd naa ñoom ñëw fi tey wante nag di jël nuyoo bu spécial. di ko teg ci loxob euh, son excellence Francesco Paolo Venier mi nga xam ne mooy ambassade Italie fii ci Sénégal euh, di rafetlu bu baax a baax sëñ Bayteen nee na nga ko laajee dikk gi nga xam ne moom dikk na ko fi tey di loo xam ne euh, lu ñu honoré la lu ñu am mbégte la wante kaddu yooyu buñ ko bëggee tënk dañ ciy jiital kaddu yi nga xam ne moom la ko sëriñ mu Mountakha wax léegi bi ñu nekkee ci ci ci sëriñ bi mu doon ko ziyaare sëriñ bi yëkkati fa ay kàddu diplomate yoo xam ne yu ko mat la te yoo xam ne ñëpp mën nañ cee jànge te mooy def ne ko ñoo ngi leen di sant ñun waa Sénégal xam ne ci turu Sénégal gépp la waxee te sañ na ko ñoo ngi leen di sant ci yaatal gi ngeen yaatal sénégalais yi foofu ci itali ndax mel na ne Italie mboolem dëkk yi ci àdduna bi sénégalais yaa fa ëpp. kon ñoo ngi leen di sant ci yaatal gi ngi leen gi ngeen gi ngeen leen yaatal foofu ubbil leen ba ñu mën faa nekkee noonu muy kaddu yi Euh, diplomate yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la te yu matale la te mu wax ko ci turu Sénégal gépp kon noonu nga ko waxee euh, ambassade bi ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko jaajëfal ci ñëw gi nga xam ne ñëw na ko seet si xalifa général des Mourides am nañ ci mbégte lool ndax ñun amuñu lu dul moom te képp koo xam ne jóg nga ngir moom rek kookee dañ koy def dañ koy jàppee nu ñu jàppee suñu bopp ci wàllu teral gan toppatoo ko li ci war lépp ñu def ko ci moo tax def nañ ci suñu kem tolluwaayu kàttan mu fas yéene seet ak a xool liggéey yi nga xam ne Touba ca kanam mi ngi koy def jot nañ ko yóbbu ci poste de santé bi bi jot a noppi ci Touba ca kanam mu dem fa visiter ko xool liggéey ba ñu expliquer ko na mu demee. bi ñu noppee tamit oto yi nga xam ne bàyyi ko woon na Italie jaaroon ci loxob Serigne Mohamed Ali Ndiaye muy ambulance yi oto sapeur pompier yi yëpp wan nañ ko ko wax ko relation bi nga xam ne euh, cellule bu Touba kanam. ca Italie mi ngi koy taxawee ak Mouhamed Ali Ndiaye jàpp gi nga xam ne moo ngi ko ci jàpp ba ñu ñëw fii nag war a def ndar képp liggéey bi kon li ci des rek mooy yëkkati euh, kaddu yi cant yëkkati kaddu yi ngërëm ci turu Touba ca kanam gi yëpp. Tout d'abord, bonsoir. Et euh, je voudrais exprimer euh, ma satisfaction et, aussi l'honneur qu'on a qu'on a, qu'on a reçu euh, par cet accueil que vous nous avez réservé euh, dans cette ville. <clears throat> Moi, <clears throat> j'ai cherché une occasion pour venir euh, à Touba. Je l'ai trouvée euh, en m'associant à la proposition qui nous a été faite euh, par un citoyen euh, sénégalo-italien, notre ami Ali Mohamed Ndiaye. qui euh, nous a invités à participer à ces moments de, de fête, je dirais, que euh, a eu lieu aujourd'hui ici, dans le sens que euh, Mohamed Ali a organisé un, un don euh, envers la, la, ville de Touba, un don qui vient de l'Italie. Et donc il nous a paru euh, opportun et très significatif aussi de nous associer à ça, parce que c'est un signe de l'amitié que euh, unit euh, l'Italie au Sénégal à travers euh, le l'outil, je dirais, le plus noble qui est celui euh, de, de la diaspora. Euh, il y a, comme vous savez, une grande quantité de Sénégalais qui sont en Italie. Il y en a plus de 100 000 en position régulière. Ils sont tous très bien intégrés, ils travaillent tous très bien. Ils sont, ils sont une force pour notre société. Ils, sont, ils ont acquis euh, des valeurs qui nous viennent aussi de la société italienne. Donc je pense que c'est un projet gagnant-gagnant, celui de la diaspora. Et dans ces cas-là, euh, Ali a su, euh, a su présenter euh, à, à, la ville de Touba euh, un don qui sert à, euh, à améliorer la condition de vie des habitants et Ainsi, il nous a aussi permis d'entrer un peu en contact avec, euh, avec le travail de l'association auquel, auquel les, les, deux, les, deux, les trois voitures ont été données en cadeau, cette association Touba Tchakanam. Mm -hmm. et, euh, et, et, je trouve qu'on a été bien frappé par le fonctionnement de, solidaire, disons, euh, de, de, de, cette association. On a pu euh, euh voir la façon dans laquelle euh, euh, l'argent est employé. On a pu visiter euh, des, un poste de santé. On a pu voir euh, comment, par exemple, euh, les postes de santé fonctionnent en termes d'accouchement. Donc, euh, vraiment un effort très grand dans un secteur crucial qui est celui de la santé maternelle. Donc, vraiment, je dirais que Euh, il s'agit aujourd'hui pour nous, je dis nous parce qu'on est venu à une petite délégation de l'ambassade d'Italie pour la bien, première fois ici à Touba, tout d'abord pour euh, euh, se mêler un peu dans la spiritualité de cette ville qui nous a frappé fortement, et pour voir aussi comment le système solidaire de cette communauté peut porter euh, des bénéfices à la communauté. C'est ça qu'on a bien retenu, je pense, de la visite d'aujourd'hui. Et on vous remercie encore une fois pour euh, l'accueil qui, a été vraiment très très chaleureux. Il s'est conclu aussi pour euh, un repas que on, euh, nous allons euh, nous rappeler de ce repas et de la sympathie avec laquelle on a mangé tous ensemble pour, pour pour, euh, pour beaucoup de temps. Merci encore une fois, Dieu Touba Chakanam. ok. lii moo di nemmeeku am solo gi nga xam ne son excellence Francesco Paolo Venier di ambassadeur bi nga xam ne moo teewal réewum Italie fii ci Sénégal amaloon na ko ci bërëb bu seele bii di Touba doon saytu mboolem liggéey yu am solo yi nga xam ne daayira Touba ca kanam ñu ngi koy amal fii ci Touba. mu nekk lool ambassadeur bi rafetlu na ko lool. waaye it rafetlu ni nga xam ne noonu la Touba ca kanam di liggéeyee ak transparence bi nga xam ne am na ci seenug doxalin ba lépp loo xam ne jébbal nañ leen ko ñu delloo ko askan wi